di woote ñëpp nag di woo ñëpp waaw Saliou maa ngi koy di ko woo si làmb ji ziar ñëpp di woo ñëpp si làmb ji ne bàyyi ma kenn waaw jaajëf jaa ngeen def mbokk yi boobu mooy premier combat bi deuxième combat bi ñu dem ci caatu pambaal écrit Mansour Mbaye ak Papa Diba caatu Pambal. mais bëgg naa leen de day daw nga ne. Zembere. Zembere rek. <laughs> bëgg la. Ah, lu bëri. sant kay. lépp jaamu kay maa lay fay. ginnaaw bi ma sant yàlla julli si yonante bi di sant samay ñaari waajur dana ne yàlla yàlla xara àjjana waaw di nuyu gaay yëpp nuyu gaay yu fi teew yëpp sàmb yooyu yëpp waaw leen ziare lu bari la demee nag. jaa Baye Balla maa lay nuyu di la siyaar di nuyu jàmbaaru toog fii yëpp di nuyu waa caaro yi ma jóge ñëpp di sant samay ñaari waajur bu baax di sant sama waa koñ ak sama ménagère sendoo yi ak fii sa saa yoo toog nii yàlla na ko yàlla defal jàmm ñoom doomu jàmbur. ñoom ñoom maa ngi leen nuyu di leen sant. waaw. jaajëf léegi ñu ngi jëm ci bésu le 18 incha allah am combat. ji kii moom lu ma koy wax bëriwul man instant sama làmb fu tool toll nii tollu ma si ay wax nii si jëf laa tool nii. moo tax xam nga lu ma war a def sant di woote pour gars jàpp na mais kii du dossier sax. Hmm. te bu jour baa ngay comprendre li may wax. du dossier. ko sax. baal ba jour ba yaa ngi stade waa incha di nga gis. doo kii daa comprendre lu xew. kii daa sibul naka la sax. xool ma nii rek danga baax rek bu jour ba dama pousse doo paas noonu la demee nag day daw rek amul. mooy bi ñeme na la de leen doo moo kii taxumaa jóg. nekk si ginnaaw ñoo tax a jóg nekk di kebetu ah rek. waa digg maanaam day jàng wax quoi si jàng la toll. ay day daw day eh, loolu ay deuxième la si mbir yi dawuñu loolu sax. loolu dafa nekk suñu doore moo wax duñ toog fi dañuy wax lu ñu amal njëriñ ñëwaat toog te bu jour waa nga comprendre li may wax yow kàttanu yàlla. ñu amal njëriñ moo ñu teg fii de ñu amal njëriñ moo teg fii dégg eh, lu ñu amal njëriñ ñoo ñoo tax ñu toog fii da ngaa baax rek yow da ngaa comprendre naa sibul nag yow taxaw maa jóg. yow taxaw moo loolu. waaye wu jour <laughs> la demee nag. Mm. waaw day kii daa comprendre daa sibul naka la. Mm-hmm. waaw ginnaaw maa ngi waa buun yëpp ak waa Pambal bi ma dëkk waaw di woo waa buun bàyyiwuma kenn waa Malika buun yëmbal waaw bàyyiwuma kenn ku lim juum daal waaw di gërëm waa Mar Sëñ Fallou. Hmm? booy Pambal sama gannaaw la. Hmm. waaw. wala hmm. déwee nag nga woo waa Pambal yëpp mu yóbbeeru ko combat yi bu baax xarit bu uuga mi si kenn di gërëm monsieur le maire Pambal bu baax Lazare Lamane mu ngi jàpp si combat ak sebet maire de Fass waaw kenn ak waa Tenba Rikens Café ga surtout buun Daaru Salaam bi ma dëkk bàyyiwuma kenn waaw noonu la demee nag bu jour waa sa waay taxumaa jóg sax noonu la demee bu taxawee dëggal boppam defaral ko bagage fët fët ñu ñibbi. waaw bu jour waa laamu ji maa woo waa Caaroy waa Maket ba waa Paax Ginaar Mengo ziyaade sant yàlla kaani gi penc mafia Ablaye Mbaye maa ngi woo ñëpp di nuyu tamit waa ñoojoor bu baax di nuyu Moustapha ak général ñoom ñëpp maa leen nuyu di leen sant di nuyu samay garant ñoom prince zo ak sama mafia ziare ñoom njaawo Darius Fallou Faye Adama ñoom ñëpp maa leen nuyu di leen sant waaw. jaajëf jërëjëf boobu moom mooy deuxième combat bi ñu jëm ci troisième combat bi incha allah SMA yi SMA euh, Dalifor mbooloo bu laal écurie Mohamed Ali. soo ñëwee da ngaa war a waajur dana yàlla yaay mètre du ma ko bougé sama diggante ak te su ma ñëwee danga nga arrière billaay su ma ñëwee di nga ci làmb fi nga foog foofu du làmb ja loola neex na ziar ñu ma àndal nag bërëde bu ne doomu jàmbur waaw Saliou maa ngi koy ziar di ko woo si làmb ji ziar ñëpp di ñëpp si làmb ji ne bàyyi ma kenn waaw jaajëf jaa ngeen def mbokk yi boobu mooy premier combat bi deuxième combat bi ñu dem ci caatu Pambal écurie Mansour Mbaye ak Papa Diba caatu Pambal. mais bëgg naa leen de day daw nga ne. Zembere. Zembere rek. bëgg naa la. ah di la ziare lu bëri. sant kay. lépp jaamu kay maa lay fay. ginnaaw ma sant yàlla julli si yonante bi di sant samay ñaari waajur. leneen yàlla yàlla xara àjjana. waaw di nuyu gaay yëpp. nuyu gaay yu fi teew yëpp champion yëpp. waaw leen ziare lu bëri. lu demee nag. jaa baa Balla maa lay nuyu di la siyaar di nuyu jàmbaaru toog fii yëpp di nuyu waa caaro yi ma jóge ñëpp di sant sama ñaari waajur bu baax di sant sama waa koñ ak sama ménagère sendoo yi ak fii sa saa yooyu toog nii yàlla na ko yàlla defal jàmm ñoom doomu jàmbur ñoom ñam maa leen nuyu di leen sant waaw léegi ñu ngi jëm ci bésu le 18 incha allah nga laa mujj kii moom lu ma koy wax bëriwul man instant sama làmb fu mu nii tollu ma si ay wax nii si jëf laa toll nii. moo tax xam nga lu ma war a def sant di woote pour gars yi ñëw na mais kii du dossier sax. Hmm. te bu jour wax. du dossier. non non maru ko sax. baal ba jour ba yaa ngi esaat wala. incha allah waaw di nga gis. doo dossier. kii daa comprendre lu xew. kii daa sibul naka la sax. xool ma nii rek. da baax rek bu jour baa doo pousse doo passe. noonu la demee nag day daw rek amul. mooy bi ñeme na la de leen doo dur jóg sax si ginnaaw ñoo ma tax a jóg nekk di kebetu ah baax rek. waa dëgg maanaam day jàng wax quoi si jàng la toll ay day daw ak day eh, loolu ay deuxième la si mbiri daw ñu loolu sax loolu dafa nekk suñu mbooloo ma wax duñ toog fi dañuy wax luñ ñu amal njëriñ ñëwaat toog te bu jour waa nga comprendre li may wax yow yàlla. moo ñu teg fii Eh, lu ñu amal njariñ ñoo tax ñu toog fii yow da ngaa baax rek yow da ngaa comprendre sibul naka yow <laughs> noonu la demee nag. waaw day moo kii daa comprendre daa sibul naka la. noonu la kon hôtel. waaw ginnaaw maa ngi Buun yëpp ak waa Pambal bi ma dëkk waaw di woo Buun bàyyiwuma kenn waa Malika Buun yëmbal waaw bàyyiwuma kenn ku lim juum daal waaw di gërëm waa Mar Sëñ Hmm? Boy Pambal. Boy Pambal sama grand la. Hmm. waaw. Hmm. wala déwee nag gaa wu ko waa Pambal yëpp mu yóbbeeru ko combat yi bu baax xarit bu uuga mi si kenn di gërëm monsieur le maire Pambal bu baax Lazare Lamane mu ngi jàpp si combat bi ak sebet maire de Fass waaw bàyyi ma kenn ak waa ten ba Rikens Café ga surtout buun Daaru Salaam bi ma dëkk bàyyi ma kenn waaw noonu la demee nag bu jour waa sa waay taxumaa jóg sax noonu la demee bu taxawee dëggal boppam defaral ko bagage fët fët waaw bu jour ba laamu ji maa woo waa Caaroy waa Maket ba waa Paax Ginaar Mengo ziyaade sant yàlla mesere kaani gi penc mafia Ablaye Mbaye maa ngi woo ñëpp di nuyu tamit waa ñoojoor bu baax di nuyu Moustapha ak général ñoom ñëpp maa leen nuyu di leen sant di nuyu samay garant ñoom prince zo ak sam mafia ziyaade ñoom njaawo Darius Fallou Faye Adama ñoom ñëpp maa leen nuyu di leen sant waaw jaajëf jërëjëf boobu moom mooy deuxième combat bi ñu jëm ti troisième combat bi incha allah SMA yi SMA euh, yi mbooloo bu laal écurie Mohamed Ali SMA maa ngi lay lay fay. naka mu naa ngi sant yàlla bu baax. mooy yow bi nga fi toogee ba léegi yaa ngi napp booy bi lu <laughs> non booy bi daa comprendre ah. baay fu ma jaar moo métti baay baax la xam nga loolu bu baax. Mm-hmm. billaahi. di sant waa Dalifort bu baax a baax ak waa Boune waa Malika waa Kër Massar ñoom ñëpp samay gaay ngi fa maa leen di sant bu baax a di sant sama grand bi Kapi maa ngi koy sant bu baax a baax di sant ñi caabi féete ginaaw